jërëjëf mbokk yi dal leen jàmm ci suñu jotaay point corona bi ñuy def tous les jours ci bu 16h30 jotee waxtu xew na ñoo romb tuuti waaye yittee ko waraloon ñu leen di gërëm di leen sant di am mbégte di fi dalal suñuy gan comme chaque jour Abdoulaye <laughs> pas Ablaye voilà euh, pour la ñooñu ci wàllu bële euh, ni ñu koy waxee chaque jour jàngoro ji foog ñuy wax fu mu toll bu dee ci biir réew mi la. xam ngeen ko ministère li mu ci joxe tey mooy am na téeméeri nit ak juróom yoo xam ni doomu jàngoro ji jot naa dugg ci seen yaram am na ci juróom-ñeent ñu wér ba kër docteur yewi nañu leen ñu doxi seeni soxla di sant yàlla waaye am na ci li ci des lu yées téeméer bi ñu ngi leen di toppatoo ci seen wàllu wér-gi-yaram kër docteur di wax ni feebar bi mu ngi fi ñu continuer di ko moytu continuer di ko moytu bi bi ci njëkk mooy set sellal di raxasu fu ñu toll di moytu di sëqat di jëmale ci nit ñi wala di lu jëmale ci nit ñi di it faggandiku dem nañu ba ci tey sol masque yi ku ko mën def ko ba ci mesures yi nga xam ne président de la république jël na ko ci état d'urgence yokk ci couvre-feu ministère yi ku nekk li ciy sa wàll nga dolli ko ci ministre de l'intérieur xamle ni tere nañu Sénégal léegi génn ci biti dox yitte wala nga nekk ci loola neex vingt heures ba six heures du matin loolu mooy consigne couvre-feu bi ministère des transport taftal ci ne ci transport yi transport en commun oto yi li ñu leen may mooy génn wàllulu carte grise bi maye ci li ñu war a yàpp pour bañ rek nit ñi di jegante saafonte bi ak it wàllante bi virus bi du doxal boppam fu mu dem nit a ko fa yóbbu ala kulli fu mu dem nite ko fa yóbbu nite ko jox nit du doxal boppam amuli tànk yorul puus-puus doxul fu mu dem nite ko fa yóbbu kon bu nit ñi fagari ko faggandikoo xëy na du dem du jóge ci nit dem ci keneen donc mesure transport bi noonu la tëddee moom tamit kuy jël transport en commun sol gant sol masque ñu góor góorgóorlu ci bu baax jëf Abdoulaye may ci invitation bi mu nekk lu ma neex di la ci remercier di ci remercier aussi sa staff bi yëpp ak ñëpp ñuy nekk fii di nuyu tamit euh, sama naataango donc madame Thérèse di euh, madame la directrice madame Thérèse. jërëjëf docteur Abou Sy ñëw léegi sax ci solo yi appui wala assistance psychosociale ah psycho assistance psychologique bi nga xamante ne nii. moom nga jiite bokk kook sa yenn ni nattango ci ministère bi Thérèse Faye Diouf directrice générale agence case des tout petits ñu ngi lay dalal bu baax di am mbégte nga teew fi ndax yëf yi du mag ñi rek du muskalaf yi rek du borom njaboot yi rek ndax kër yi ku génn soxla dab la yaa ngi xalaat la nga bàyyi ci biir kër gi te gannaaw tënk nañ xale yi ci biir kër yi solo la lool nga teew fi tey ñu am di la dalal Thérèse Faye Diouf. di nuyu sama naataango bi nga xam ne moom laa bokkal plateau bi euh, di nuyu Sénégal yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ñu ne ci biir réew mi ak ñu nekk ci diaspora bi yëpp maa ngi leen di nuyu. jërëjëf madame la madame le directeur ñu yemale ko foofu rek. Euh, balaa ñuy sori point corona bi ñu leen koy wax du ay caaxaan parce que gis nga àdduna bi coronavirus bi wax nañu ni quatre cent quatre-vingt-cinq mille personnes am nañu ko. ci àdduna bi ñii ci ñàkk seen bakkan lim bi mu ngi yokk démb wax nañ leen ci vingt mille la ñu tolloon tey ñu ngi ci vingt deux mille am na réew yoo xam ne lim baa ngi gën di yokk mu jural leen njàqare gu rëy yu mel ni ki Espagne mel ni ki Italie mel ni ki France waaye méngale bi nga xam mooy New York état bu mel ni New York lu tax ñu koy jël parce que virus bi mu ngi fa dugg le premier mars cas njëkk bi le premier mars ñun cas bu njëkk bi fii ci réew mi la 2 mars. donc méngale boobu moo gën a yanu maanaam donte xëy na dayoowu nit ñi bokkul. tey bëccëgu guddi bu mujj bi téeméeri nit yu bees la wàññi ni ñàkk nañ ci seen bakkan loolu moo ñuy won ni xëy na ñun am nañu lu ñu sant yàlla pour le moment te xëy na ndam la ndamal askan wi la ndax xëy na jàppale nañu consignes yi kër docteur yi di joxe. waaye ndamal ñi ñuy wattu la muy ko docteur personnel sanitaire bi nga xam ne bàyyiwuñu tàyyiwuñu li leen dimbale nag mooy consignes yi nga xam ne ñu ngi koy joxe nit ñi war koo doxee lu am solo la mais gis nga méngale boobu rek bu ñu ko jëlee xam ne yëf yi du xaalis du daraja du am barke ndax bu doon xaalis la def naa Donald Trump réglé na ko mille milliards la ñu yëkkati pour di ko bëgg koo xeexee te pourtant njàqare la leen jural kon balaa yëfi di ëpp loxo xay na li nga xam ne mën nañu ko ngir faggandiku ñu doxalee ko balaa ñuy sori ci waxtaan bi dañoo nekk jamono yu couvre feu sama gan yi baal ma parce que aussi dafa am loo xam ne ñun la concerné directement journaliste yi ci liggéey bi ñuy def ba ci couvre feu bi ndax liggéey bi du dakk mukk ministère de l'intérieur woote woon ci ndaje boo xam ne patron de presse yi la ko doon séqal Mamadou Ibra Kane maa ngi lay nuyu est-ce que yaa ci ligne bi. waaw Mamadou yow yaa jiite kuréel bi nga xam ne nii moo njaboote patron de presse yi. dalal bi it lenn rek la ci xibaar yi mujj lan la ñu may journaliste yi pour ñu mën di continuer def seen liggéey bu waxtu couvre-feu bi jotee mu bañ a doon gàllankoor ci seen liggéey ndax nit ñi dañuy toog seen kër di seetaan déglu rajo bi te rajo doo ko mën a déglu sa kër tant que amul koo xam ne nii mu ngi ci biti mm. di wax ak yow démb 21h gis nga ko jotaayu télévision Futurs Médias ñu ngi woon ci suñu interview ak euh, ambassadeur Union européenne ak bu Espagne Mamadou lan la ñu may journaliste pour ñu mën a continuer seen liggéey. Euh, tey bu ñu waxtaanee ak ministre euh, de l' ministre de l' intérieur dafa proroger la dérogation faite aux journalistes. ak les travailleurs des médias parce que du journaliste rek on nous avons également des techniciens nous avons des chauffeurs nous avons d'autres personnes yoo xam ne ñoom tamit dañuy liggéey guddi donc léegi euh, ministre bi dafa proroger la dérogation qui nous était accordée lu ñuy wooyee autorisation spéciale de circuler donc ministre bi euh, jox nañu ay formulaires yi nga xam ne Euh, au niveau des entreprises de presse dañ ko war a remplir euh, pour def ci ay mention tour euh, sant et cetera. et ku nekk déclaré pour ku nekk déclaré salarié yi nga xam ne ni ñoom ngay utiliser. ci jamono ji daal pour ñu mën a am autorisation boobu. exactement exactement loolu lan la war a nekk donc képp ku nga xam ne entreprise yëpp pour mooy ku may wax ak yow maa ngi doon bind. Euh, benn communiqué bu nga xam ne dama koy tas ci euh, taskatu xibaar yi ci entreprise de presse yi dégg nga pour cela képp ku soxla euh, autorisation de circuler à compter de lundi nuit dégg nga ñu mun la jox un formulaire te nga remplir ko donc suñu autorisation bi nag ça nous permet de circuler sur l'ensemble du territoire national mmh. maanaam mun nga jóge fii Dakar dem jusqu'à Fongelemi Euh, te c'est valable durant tout la période de couvre parce que couvre-feu bi dañ ko jël pour le moment de manière provisoire mais kenn xamul ndegem dinañ ko proroger wala déet donc loolu mooy disposition yi yi nga xam ne moom lañ jëlee au niveau du ministère de l'intérieur. d'accord te bu ñu ci jógee altine bu ñu déposé bu ñu leen joxee habilitation boobu moom mooy continuer au-delà de carte de presse euh, maison yi nga xam ne moo moo nekk en cours tey. voilà voilà moom mooy remplacer autorisation bi. Mm-hmm. mooy remplacer les cartes de presse dégg nga parce que carte de presse yi comme ni ma la ko waxee euh, mm-hmm. ci ministère de l' intérieur nee na ñoom mënuñu vérifier l' authenticité des cartes de presse mm-hmm. parce que c' est pas des cartes de presse ils sont délivrés par euh, la commission euh, nationale organisme donc reconnu par l' état dégg nga léegi nag dama bëgg a rek si li nga wax léegi dès demain dès demain matin mun nañu commencer déposer dégg nga bu ñu retirer fii si man Euh, les formulaires la euh, pour euh, les autorisations parce que ñun suñu autorisation du autorisation provisoire c'est une autorisation qui est permanente te ba pare comme ni ma ko waxee ça concerne l'ensemble moom la ñuy wax enfance vulnérable naka ngeen ko dundee ak lan moo ciy teg waaw Euh, kuréel la rek dañu am gis-gis ak taxawaay bi ñu loo xam ne euh, benn taxawaay la rek muy juróom pays di nekk Dakar ak fii ci région boobu Kolda cinq régions yi nga xam ne ñu koy ëmb bureau baa ngi koy ëmb demee Ziguinchor ba Sédhiou xam nga Sénégal bi am taxawaay boo xam ne taxawaay bu bu ñu bu ñu rafetlu la parce que ci région boo gis am na lu ñuy naan comité régional de gestion des épidémies te commission boobu service yëpp ci nekk service yi ak partenaires techniques et financiers donc fii ci Kolda autour du gouverneur comité régional de gestion des épidémies liggéey na ba taxawal plan d'action boo xam ne plan bu bu ñuy naan plan multisectoriel bu intégré bi nga xam ne ñëpp a ci bokk ñëpp a ci gis seen buñ koy bu ñu gën a wàcce nag boo demee ci département yi am na aussi lu ñuy naan comité départemental de gestion des hôpitaux nga xam ne préfet yi ñoo ko naan ak sous-préfet yi ak service départementaux yi ak acteurs partenaires donc liggéey boobu bu ñu ko defee ba pare dañoo ñun xaaruñu dakk parce que am na ay kuréel xam ne ñu ngi fiy yëngu am na ñun déjà liggéey bi ñuy def ak euh, région médicale ak district sanitaire yi ak IA ak IFI ñu ne li ñu daan liggéey dañ koy jël réorienté quoi ci li xeex Covid bi te ci liggéey boobu ñu ngi ànd aussi ak société civile ñu ngi ànd aussi ak acteurs communautaires yi ñu ne leen nag euh, li koy priorité mooy nit ñi xam lan mooy Covid bi lan mooy coronavirus te nan la nit ñi mën a taxawee ba. ñu faagaagal ko mu bañ a am bañ a yegg fii ci Kolda ñu ne nag euh, dañuy waxtaan ak li ñuy naan imam yi maître coranique yi waxtaan ak ndaw yi kuréelu ASC e yi club de jeunes filles waxtaan ak euh, jàngalekat yi waxtaan ak euh, force de sécurité ak force de l'ordre yi ñi nga xam ne ñu ngi lëppaloo ak nit ñi di demalante pour ñoom aussi ñu mën a waxtaare boobu waxtaan mu am aussi lëkkaloo bu ñu def ak rajo communautaire boobu la liggéey ak li ñuy naan URAC union des radios communautaires bi Sénégal mais xam ne aussi ñoom commencé nañu sensibilisation bi di waxtaan ak nit ñi mais aussi euh, li ñu gën a gis mooy nit ñaa ngi dem di ñëw que aussi Kolda région yi nga xam ne la dafa ŋànk ay frontières ak euh, Guinée Bissau ak République ak Gambie te loolu aussi ñaa ngi dem di ñëw ñu ne nag ak gouverneur ak préfet yi ak poste de sécurité yi ñu identifier poste d'entrée yi porte d'entrée yëpp ñu taxawal fa lu ñuy naan dispositif de lavage des mains ak gel alcoolisé bépp citoyen nga doon sénégalais wala gambien wala guinéen muy dugg wala di génn il faut nga jaar ci dispositif yooyu donc liggéey bi euh, bi ñu koy tàmbali sax euh, dafa doon dañu ne duñu xaar parce que plan d'action bu ñu dem Dakar bu ñu ko validé mais dañu ko suuf si am loolu ñun ñun euh, mobilisation bi ñu gis Dakar ñu def ko fii aussi commerçant yi innocua yi euh, partenaire personne ressource yi yépp a ci dugal seen loxo ba tey ñu ngi liggéey ak euh, ressource bi nekk yi nekk ci suuf bajenu gox yi ak maître coranique yi ñu identifier bépp daara bi nga xam ne mu ngi fi bépp xale bi taxaw ci mbedd aussi acteur communautaire comité départemental de protection de l'enfant ñu ngi def li ñuy naan ay sorties de rue ñu ngi génn bëccëg guddi di xool xale yi fi ñu nekk di couvre-feu bi nag amee état d'urgence ci la taxaw wax ak préfet mu génne dogal waxtaan ak maître coranique yi ne ku ne payé xale mu am nag dispositif boo xam ne dañ ko teg mhm. parce que am na ay comité de quartier de veille et de protection am na comité villageois de veille et de protection ñoom ñëpp dañ leen dugal ci dispositif boo xam ne WhatsApp la mu am ay dispositifs d'alerte ay signaux yoo xam ne bu ñu gisee lu dul naka su dul noonu automatiquement dañuy saisir ay points focaux le lendemain bu ñu yeewoo rek ñu envoyé ñun suñu acteurs yi ak district ak service départemental d'action sociale service départemental développement communautaire ñu dem ci suuf waxtaan ak ñun seet lan mooy situation bi. mais Yves Yves Yves Yves bëggoon naa la relancer foofu rek parce que xam nga aussi. Euh, Dakar li ñu fiy faral di gis euh, li fi population vulnérable lu bari ci région yi la ñuy jóge ah, ah. rawatina sax colda da nga tudd ba tudd daara yi ak xale yi nga xam ne ni ñu ci mbedd mi te ñu nekk ci jamono joo xam ne taxawaalu ci mbedd warul am daara yi ni école yi ni ñu faggoo école yi xëy na lañ leen war a faggoo euh, daara yi bu ñu leen mënul tëj ndax xale yi fa la ñu dëkk donc xam nga doone xale yi toog leen seen kër yan matukaay au delà de raxas loxo beeg yooyu ci ñi nga xam ne ñu ngi ci mbeddam te UNICEF di ci liggéey lu bari akit daara yi parce que foofu bari na fa souvent sax dañuy wax ni ñii ñëw Dakar yu bari ci région yi dañuy jóge jarul ñuy nëbbante suñu biir ñu bari dëkkuñu dakaar dañoo jóge ci région ñoom moo tax sax d'ailleurs ñu nekk ci mbedd mi parce que amuñu fi attache. waaw munoo confirmer xale yi nekk ci daara dañu xam xam nañu daara yi ñoo gisee daara boo génn am na ay moins à moins cinquante xale yu fay. Hmm. ci benn néeg ay conditions munoo leen confiner te xamoo confinement bi ci ñaata at lay duré donc ñu ne li ñuy def mooy acteurs yi dañuy identifier xale yi nekk ci daara identifier seen provenance xam fu ñu jógee waxtaan ak maître coranique yi waxtaan. fexe ba identifier seeni waajur def nag li ñuy naan médiation familiale pour seet xale yi nga xam ne nangu nañu dellu waajur yi ak yi nangu accueillir ñoo ñooñu aussi ñu delloo leen mais ñi nga xam ne mënuñu dellu ñu nekk ci daara bi il faut aussi ñu accompagner daara boobu en terme de mesure d'hygiène mesure de propreté mais aussi en terme de lan la ñuy lekk lan lañ koy defee loolu aussi mooy paquet de service la ñuy def parce que de service bi nga xam ne day ànd ak retour en famille mais ñi nga xam ne mënuñu dellu ñoom aussi mu am accompagnement bi ñu leen di def en terme de service d'hygiène en terme de assainissement yi aussi li ñuy dundee ak li ñuy lekk mais dañu ne aussi boo seetee ba seet confinement bi. Mhm. buy ëpp ay ñetti weer day métti parce que aussi solution boobu viable na est-ce que état bi wala acteurs partenaires yi mën nañu. Mm-hmm. weer bu nekk wala bés bu nekk di indi lekk ñu ne il faut ñu delloo loolu responsabilité collectivité territoriale yi nga xam ne ñoom ñoo yor daara yi ñoo responsable territoire bi nga xam ne daara yi fa la ñu nekk ñoom ñu seet seen budget bi nan lañ koy réorienter ligne sociale bi su dañuy mën a jël loolu en charge mm-hmm. parce que dafa doon loo xam ne mbir mu nga xam ne ñëpp a ci war a dugal seen loxo ñu ne nag ñu su ñu defee li collectivité territoriale yi il faut aussi ñoom ñu jouer pleinement seen rôle donc loolu la ñuy liggéey actuellement nii. Mhm. Euh, euh, fi ñu toll nii vraiment euh, li ñu gën a envisager mooy retour en famille xale yi dellu seen mais aussi xale yi ñuy dellu en famille il faut nga am nooy jàppale famille yi famille yi waa waajur yi parce que loolu day ànd ak li ñuy naan évaluation de capacité familiales famille yi dañuy évaluer seet nan la ñu bindoo nan la ñu toogee lan la ñu mën ak li ñu mënul. ci loolu la ñuy orienté ndimbal buy jëmale ci famille mm. te loolu dañu ne à long terme il faut ñu lëkkaloo ko ak système de protection sociale ak mesure yi nga xam ne président de la république jël na ko pour dimbali njaboot bi a uh-huh. terme Yves xam na Yves xam naa rek ba ba xale yooyu dellu uh-huh. ñu liggéey ba gox am daara uh-huh. ba xale yi bañ bu lii jeexee ñu delluwaat ci dëkk dëkku kaw yi ba pare nekk ci mbedd bi di yelwaan dafa dafa vision boo xam ne vision bu gudd la. Uh-huh. mooy du ñu taxaw rek jëlee nañu xale yi ci mbedd bi jële nañu leen ci daara yi mais il ñu xool suñu jógee fii nan la ñuy améliorer gestion wu daara yi ñuy war a ñëwaat pour ñu ubbiwaat daara yi il ñu waxtaan ak IA yi IEF yi maîtres coraniques yi collectivités territoriales yi ci condition ak critères de réouverture Yves Yves nga Yves nga taxaw foofu <laughs> yooyu ouverture ba xale yi nekk ci anam yoo xam ne anam yu rafet la parce que man ñun dañuy faral di nekk mhm. xale yi nekk ci école formelle ak xale yi nga xam ne seen waajur yi dañu jël option ne ci daara yi lañu war a nekk système d'égalité moo war a am ni état yi di jàppale système formel noonu la jàppale aussi daara yi mais pour ñu jàppale daara yi bien sûr Yves Yves nga taxaw foofu xëy na bu ci xajee dinañu ñëwaat ak yow gars yi dinañ xool en régie pour bàyyi la soit téléphone comme ça balaa ñuy tëj ñu ñëwaat docteur abusi dugal na point yu bari yoo xam ne ci xel yi la cest à Sénégal ni mu bindoo euh, bu lu mel ni amee tëj daara xam nga tëj tëj école yomb na mais tëj daara ndax daara ñi fay nekk. fa la ñuy nekk loolu yëpp liggéey bi ci xel yi la liggéey bi ci xel yi la pour expérience retour en famille bu liy jeexee ñu delloo leen li Thérèse doon wax sànq ci dundin bi ci biir famille yi xam nga léeg-léeg sax nit ne waaye tëj bi moom metti na finalement mhm. eh, eh, nan la ñuy préparer xel yi pour lii yëpp ñu àttan ko te surtout préparer woo ci ne xëy na mën naa yàgg yàgg bi ci diir la waaye diir bu gàtt cib dund bu ñu nee yàgg na juróom-benn weer xam nga juróom-benn weer du dara ci dund gu nar a neex. Mhm. nan la ñuy préparer wu pour attan ko. Euh, merci Abdoulaye man je pense que euh, dafa am dara lu am solo mooy bu di nii jàpp rek ne tere bi ñu leen tere génn kenn moo teg ci neexaayu bakkanam rek mu ne génn bu kenn génnati. Mhm. xam sànq da nga koy wax nga ne même état d'urgence bi ñu teg nii couvre-feu bi ñu teg nii couvre sanitaire la. Mhm. xam nga def naa ne dernier couvre-feu bi c'était en mm-hmm. Mm-hmm. te boobu situation yi nekkoon ak situation ñu nekk léegi du benn mm-hmm. boobu boobu trouble à l'ordre public lañ doon bañ nekkoon ay études nekkoon ay xale ndongo di jàng ki léegi ñu nekk benn situation boo xam ne nii fu mu nekk nii euh, feebar la épidémie la feebar boo xam ne mën naa jàpp ku nekk te bu la jàppee xamoo naka ngay réagir te feebar bi bu duggee ci kër comme ni ñuy wax soj bu hmm. duggee ci kër balaa mu ca génn dana jàpp ñëpp te tey jii comme ni ma ko xewoon keroog li xew Sénégal dafa même aller à l'encontre li ñuy wax sur le plan mondial parce que sur le plan mondial dañuy wax ne kenn ko am feebar bi ku nekk di nga wàll ñaar ba ñetti personne hmm. man nee naa ce qui s'est passé au Sénégal défie na loolu parce que gis hmm. nañ benn nit bu wàll presque vingt personnes loolu nag du ñun dinañ ko comprendre buñ ko liiree par rapport à notre culture ñun ñu dëkk ci dëkk bi am am réalité yi loolu duñu bett mais boo ko waxoon Europe da leen di bett hmm. donc parce que configuration moom moo tax kon tey jii loolu rek benn cas boobu rek waroon na tax ñun père de famille ku nekk nga fàggu xam ne feebar bi bu duggee sa kër dana dana laal ñu bëri hmm. bu newul ñëpp te bu laalee ñu bëri amaana am na ñoo xam ne nii ay forme mineure la ñuy am mhm. mais am na ñoo xam ne ay forme sévère la ñuy am tey jii dëkk yi nga xam ne nii ko yaa ngi doon yaa ngi ko doon wax sànq naan New York mhm. ëpp ñu leen ëpp mhm. pourquoi est-ce que ñu am ay forme sévère foofu te amuñu forme sévère fii au Sénégal xamuñu mais ñu yàlla tamit forme sévère yooyu am fi parce que comme la l'habitude de dire suñu système de santé attanul loolu waaw donc comme que suñu système de santé loolu il faut ñu def prévention waaw léegi nag nit kii nga xam ne dañ naan la demal toog sa kër il faut nga xam lan moo war a tax nga toog sa kër li war a tax nga toog sa kër moom mooy que ne premièrement aar sa bopp premièrement balaa ngay balaa dara yow mii nga xam ne yaa ngi génn xam nga maa ngi lay tooñ sànq naan la fu mu nekk nii dañuy dem ba nga xam ne nii génn boo génn sa kër rek jàppal ne c'est sorti risquée mhm. kon yow ki ne la toogal sa kër daf ne la toogal sa kër pour yow nga bañ a jël risque te foofu dañuy saluer la décision qui a été prise mm-hmm. par euh, le chef de l'État parce que daf ne toog leen seen kër guddi gi mm-hmm. mais bu bëccëgee dem leen uti loo jox seen njaboot parce que xam na réalité yi xam na ne fii peut-être que en France tey jii boo demee nga jël exemple France nga xam ne pour nga génn il faut nga ut kayit signé ko mm-hmm. wax fa ngay jóge ak fa ngay dem ak la ngay jaar ak fa ngay jaar ak la ngay jël mais xam na ne tey ji ñun amuñu kii boobu amuñu possibilité mm. boobu donc ñu adapté par rapport à notre culture par rapport à notre situation mu ne ah xale yi nañ leen denc ñu bañ a dem école parce que mun na doon mun nañ doon ay vecteurs. Mm-hmm. mun nañ jëlee feebar bi fii yóbbu ko fële. c'est même prouvé ci étude OMS. gis ni xale yi ñoo ko gën a wasaare. ñoo ko gën a wasaare donte du ñoom ñoo gën a vulnérable. voilà parce que bu xale bu jógee dem kër maam. Mm-hmm. yooyu mën naa indi yeneen. Mm-hmm. donc mu ne xale yi nañ leen téye want xam ne mesure boobu doyul. ñu ne léegi nañu def euh, euh, système couvre-feu boo xam ne dafay ànd ak nit ñi bu xëyee boo leen xëyee ngeen dem uti loo leen am indi wante nag il faut ngeen wàññi dox bi. Mhm. kon couvre-feu bi ñu def pour lan la pour wàññi dox bi mën a protége nit ñi ñu bañ a nekk ci biti lu bëri. Mhm. donc ñu ne nag léegi. am na leneen loo xam ne peut-être nañ ci ñu après ñu ne bu loolu weesoo dina am accompagnement social. Mhm, bien donc peut-être ba loolu mooy suñu. benn pàcc la 50 milliards yoo xam ne ni dañ koy dimbalee. dañ koy dimbalee njaboot yi nga xamante ne nii kon ah. tey amul kenn ku war a tax ne. Mhm. war a taxaw ne man damay dem parce que sama njaboot amul lu ñu dundee. Mhm. bu nekkee sax amuloo dundee ñu ne waaw léegi nag naam ñoo ngi nekk di def tey ci suba rek ñoo ngi woon euh, au niveau du ministère avec euh, madame la directrice générale de l'action sociale. boo xam ne ñoo ngi réfléchir suñu stratégie mm-hmm. boo xam ne nii dimbal bi ku ko soxla danañ la fekk fa nga fa nga nekk jox la ca lañ la ca war a jox ñu dimbalee ko pour nga mën a bañ ne wax ne man aw ma lu ma damay war obligatoire dama uti da nga uti yi man nag buñ ne la toogal ngir sàmm sa bopp yow da nga war a toog te yow boo ko amee yow mi uti boo ko amee sa njaboot dinañ ko am mm-hmm. xam nga kon yow bi la tax ngay uti pour mooy dimbali sa njaboot boo ñëwee indi leen feebar indi nga leen beneen problème mm-hmm. Mm-hmm. waaw te sa njaboot bu ko amee waxuma la sax stigmatisation beeg yeneen yi wan sa gox danañ ko am. Mm-hmm. xam nga et donc bu ko gox ba amee tey jii bu wasaaroo ci dëkk bi te mu nekk ñun ñu nekk ay dëkk yoo xam ne on na des pays on des pays pauvres avec un système de santé qui est fragile. Mm-hmm. bu ñu dalee lenn su dalee suñu kaw mais su boobaa c'est-à-dire que tout le système va s'effondrer euh, euh, s'effondrer. et loolu nag la ñuy bañ. moom moo tax naam sax mesure yu ñu jël boo ko déggee ci un pays pauvre dina metti parce que bu ñu naan ñoo ngi génnee cinquante milliards di ko def ci aide alors en tant que pays pauvre pour dimbali mm-hmm. njaboot yi mm-hmm. dafa nekk loo xam ne ni c'est une mesure boo xam ne mënta ñàkk mm-hmm. mais cinquante millions xajoon na feneen mais bu ñu ko defee feneen tey jii bu loolu tey bu feer bu dalee suñu kaw loolu dootu amati solo donc yow mii naan damay génn pour dem utili sa xam nañ ko fii ñu ñëpp ay góor góorul lañ mhm. wante nag booy dem indi sa njaboot uti loo leen jox ba indaale leen feebar bi nag su boobaa di nga mere sa bopp mhm. parce que damay jox toujours exemple ki nga xam ne jóge na Italie di ñëw Sénégal buñ ko ne woon boo ñëwee Sénégal di nga wàll sa njaboot yëpp feebar du ñëw dina préféré toog Italie mhm. waaw buñ ne woon boo ñëwee Sénégal da nga sa gox di nga am ñu exposé. da ko tasaare da nga ko wasaare. Mhm. du ñëw. Mhm. donc peut-être que manque de mooy li ma wax sànq parce que am na ñu bëri ñoo ngi naan dañoo bëgg a ñibbi Sénégal li tax ñu bëgg a ñibbi Sénégal mooy psychologiquement xalaat nañ ne. jege seen mbokk dañuy jege seen mbokk moo gën a daal seen xel moo gën a daal seen xel. Mhm. xam nga dañ naan boo jaaxlee dawal dem ut seen mbokk. donc loolu moom moo tax ñu ne dañuy ñëw fii mais buñ ñëwee fii tamit dañ leen di ñaan ngir yàlla pour ñoom seen bopp. ak pour seen njaboot bu ñu ñu nangu mesure de quarantaine mhm. mesure de quarantaine mooy lan mooy boo jógee bitim réew boo ñëwee na nga toog toogaay toogandiku mhm. ba fukki fan ak ñeent bu motee ñu xam ne feebar bu nekkul ci yow nga dem sa njaboot pour sàmm leen mhm. waaw am na nag ñoo xam ne ñoo ngi ñëw du ñu respecté loolu mais nañ xam ne ni dañuy exposé seen njaboot dañu exposé seen seen kii et ñoo ngi liggéey sur ce plan avec aussi toujours ak euh, direction générale action pour xool ñoo ñooñu nga xam ne bu ñu leen mettre en quarantaine naka lañ leen di dimbalee ba nga xam ne dañ nekk dans des conditions optimales naam sax mënuñu def ay conditions yu yu rëy a mais nañ def conditions yoo xam ne da nga ci mën a toogandiku ñu seet sa yaram xool la ba fukki fan ak ñeent yu jot bu motee nga daal dem sa kër ku xam ne tamit mënoo loolu nga xam ne yow pexe nga ba ñëw ba sa njaboot yow sa bopp yaa war a jël sa bopp nag jël sa responsabilité individuelle parce que liñ ne biñ wax ni responsabilité individuelle nga jël sa bopp nag daal di toog nag yow daal def auto isolement. Hmm. nekk foo xam ne da nga fay toog fukki fan ak ñeent pour protéger sa njaboot donc loolu moo ci am solo. Hmm. docteur Abou Sy coordonnateur cellule psychosociale bu ministère de la santé et de l'action sociale très important ni mu ko doon waxee. Adja euh, Thérèse Faye Diouf. Hmm. dafa di aussi jàngat yi nga xam ne war nañ koo def waxtu yi nag man sentiruma ko presque wéy na fi mu toll nii. Euh, au delà de li nga xam ne xew na jàngat bi mooy. suñu structure familiale ñu jàngataat ko xool nu ñuy doxalee marché yi tey ñu ngi xalaat marché yi mais marché yi xamuñu nu mu bindoo parce que ni mu bindoo xam nañu ko mm. mais la ñuy dox ne waxee nit ñi dem leen marché te bu leen jegante parce que marché yi ni mel moom <laughs> yaa ma ko gën a xam mm-hmm. mais de delà de ça ci li nga xam ne nii moom nga yor ci ci xale yi mm. est-ce que bu ñu jógee ci lii du ñu gëstu parce que mbir mi berti na bertel boo xam ne mm. prévoir ñoo di jàngal xale mm-hmm. yi nga xam ñoo leen yor ak yooyu ñoom toog nañu euh, croiser les bras ministère bi doonte mettre na dis boo xam ne mën nañ ci jàng en ligne mais est-ce jarul ñu gën a gëstu aussi gën a méngale suñu lépp ak jamono bu ñu génnee ci lii xëy na sori na ñu génn ci waaye yàlla mën na ko amin yàlla nañu yàlla may ñu gaaw ci génn euh, li nga wax dafa am solo et puis ça rejoint à li ma doon wax léegi rek mbir mu amee moom nañu jéem a réadapté wu mais aussi dina tax euh, gouvernement bi ak secteurs yi mais aussi parties prenantes yëpp mun a projeté wu vers des perspectives yi nga xamante ne dina sóoraale lu bëri te li nga wax dafa am solo ba nga xam ne man récemment maa ngi ko doon wax quelque part sax euh, dañu toog ba waa fondation Qatar. Mhm. nga xam ne soxna buur bi moom mooy présidente bi envoyé ay mail tous les partenaires ñun ñi mu yónnee ci mail pour que ñun ñi liggéey. xalaat dès maintenant ci yan innovation la ñu war a intégrer maintenant dans le système éducatif au niveau mondial pour mën a euh, intégrer données yi nga xam ne xew na ren. Mhm. Euh, donc ça rejoint ay ak li ngay wax léegi am na ñoo xam ne tey nekk na seen yitte pour que les apprentissages à distance. ah certes ci côté mag ñi wala professionnels yi ci la gënoon développé mais je pense que même bu fekkul bu dul problème wu ay feebar yu am wala situation yi sax. je pense que fu ñu jëm. Euh, da ko hmm. laaj parce que dañu nekk monde boo xam ne tey ñun ñee ngi développé la cinq g ñun ñee ngi technologie bi egg na fa nga xamante ne vraiment. Hmm. Euh, xale yi nga dëkkal sa biir kër sax am na loo xam ne lu ñuy xam ci ordinateur yow doo ko xam donc je pense que nañu jàpp ne que certes xale am na mais xale bu nekk par rapport au à à l'innovation am na des pratiques qui sont adaptées à son niveau d'intelligence. certes l'intelligence artificielle am na aussi ay effets négatifs parce que loolu aussi il faut ñu accepter ko mais je pense que am na fu mu arranger les états ba tax na war nañ ko intégrer pour xool cas yu mel nii nañ ko nan lañ koy régler te nu mun amee ci ci jàng ci njàng meeg njàngale bi foofu aussi nga may ma ma féliciter le ministre de l'éducation nationale parce que mhm. ñoom système bi buñ ñu ko amutoon avant lii di am mënoon na nekk sax que dinañ am ay retard dans la mise en œuvre mhm. mais heureusement le, le, le dispositif existait au niveau du CIMEN maintenant li nga xamante ne moom laay wax rek mooy lu mu amee ci système éducatif bi nekk ci une préoccupation noonu la nekkee tey jii dans l' administration. Hmm. également une préoccupation même yéen dans l' exercice de vos métiers gis naa ne que fan yii yéen a ngi euh, adapté wu à la télé. travail euh, hmm. pour gën a gën a gën a mën a euh, perte temps bañ a perte temps. Hmm. pour mën également def seen liggéey te ku nekk fa nga nekk. nga mën en di fagandikuwaale di ah, fagandikuwaale donc je pense que c' est une approche globale qu'il faut développer et qu'on sache que aujourd'hui on est à l'heure de la technologie ñu bañ ko loolu moo am ñu nangu ko loolu moo am. maintenant dans les états ku nekk aussi ak sa niveau de développement parce que loolu aussi dafa am solo par exemple li France wala ay États-Unis wala Qatar bi ma cité léegi lu ñu mën a réussir ñun Sénégal pour ñu tëb a tëb réussir ko euh, day xaw a jafe parce que bu ñu fàtte ne que dans le système éducatif sénégalais certes am na ñoo xam ne bu ñu yeewoo mën nañ taal télé jàkkaarloo di suivre l' émission de Assou Mbenthioubou ah salle des profs mmh. euh, wala am na xale yoo xamante ne mën nañ connecté wu à travers seen ordinateur mën a suivre cours yi nga xam ne ministère de l' éducation nationale ñu ngi koy joxe mais au même moment il y a des élèves qui sont dans des villages yoo xamante ne amuñu ce dispositif là. maintenant foofu laay posé. benn question am na bu ñëw sama xel léegi Jaareer par exemple dama ko tànn nii rek ah. <laughs> c' est c' est un pur exemple foofu nan la ñuy def. Euh, par exemple Jaareer Jaareer xam nga am na dëkk yoo xam ne moom am nañu courant am na ñu télé. du du ñëpp am télé aussi parce que dëkk bu amul courant euh, je pense que à moins que nga am solaire pour nga dawal fa télé dina métti donc moo tax ma ne il faut ñu réfléchir sur des schémas yoo xamante ne disparité yooyu yëpp dinañ ko jël en charge pour mën a gën a appuyer le système éducatif te boo fàttali ko président de la République Macky Sall depuis le début dafa mës a gëm ne que on est à l'heure du numérique et il faut développer le numérique davantage def ko un outil de travail dans les secteurs parce que bu ñu ko defee rek du sonn. Euh, su ñu jógee ci wàllu njàng meeg njàngale bi ci loolu. Mm. damay insister waat mm. ci li nga xam ne moom mooy famille yi. qu'on sache que aujourd'hui c'est le moment ou jamais ñu mën a gën a développer la solidarité. Mm-hmm. si je dis la solidarité wax na ko léegi par exemple stigmatisation bi am na mais aussi solidarité à l'échelle familiale à l'échelle locale. loolu yëpp dafay gën a dëgëral nit ñi suñu nekkee ci ay moment de stress walla ay moment de psychose. tey Sénégal lii la alors on a la chance docteur Anani Poulard seetaan <laughs> voilà bon alors <laughs> Claro Fewani non docteur tu vas faire l'appel de raxas loxo en 30 secondes ah tu vas parler ça <laughs> c'est une gageure waaw waaw kooku xam naa bu ma ko defee boo moytu dinaa fi wax toj toj boo xam ne bu ëllëgee ah, séeréer sama mbokk séeréer nañ ma caw ah, Thérèse en séeréer waxal ak mbokk kon comment on fagandiku bi ci raxas loxo mm. moytu génn bi respecté li kilifa yi wax mm-hmm. bañ a génn bañ a joteeg mm-hmm. bañ a kenn boo ko defee moo ma feelu la man xaw naa dégg tuuti soose <laughs> waaw le séeréer euh, mina simna naa laya nuun e meeke i toloox na na adna fe fo jangaru feke ando naye ten refu coronavirus fat wiin we njaɓo laxada xa ɓay den fo saafu fo foofi fo eau de javel bo ta xool mais aussi dan respecté a ke ando naye ten refu décision ke président Macky Sall a jang na fo gouvernement fe fop o kiino kiin a jéem o fi kemtalaay kattan pour a waag aar a xooxum a aar ɓasin ne merci beaucoup campagne na ba pare de dégg naa président dégg naa gouvernement damay tooñ rek <laughs> Thérèse waxoon naa leen naa ko rek dama koy leb parce que defoon naa ko ba pare ah. <laughs> defoon naa ko defati ko ah donc jarul ñi ci dellu si hmm. hmm. ma bàyyi la nga mujjee kàddu gu mujj gi ah waaw nu ñuy jàngatee yëpp nu ñu koy dundee euh, ba mu gën a woyof daal donte jàngoro la nag jar naa am njàqare mhm. mais nu ñu def pour mu gën a woyof waaw man euh, ginnaaw si remerciement yi ma la remercier tout ça damay wax ne aujourd'hui am na lu tuuti loo xam ne kenn mënu kaa gis mhm. te pourtant jàngal nañu lu bëri jàngal nañu l'essence de la famille xam nga dañuy wax naan la famille est le noyau mhm. de la société tey jii bi ñu nee bi ñu jaaxlee ba jaaxle lan lañ wax ku nekk na nga dellu sa kër <laughs> que mu nekk Europe mu nekk États-Unis mu nekk Asie mu nekk ñëpp dañ leen dellu leen ci kër yi ngeen mm-hmm. toog donc tey jii muy jàngat boo xam ne dafa fort ñu nekkoon donc bu amee benn vérité bi wax mooy la famille mm-hmm. donc nit ñi dañu war a suudewu autour de la famille construire la société autour de la famille indi li ñaan comme li nga doon wax sànq euh, euh, solidarité familiale solidarité sociale li nga xam ne ni comme ni ma koy wax tey jii bu ñu réussiree benn chose man li ma jàpp mooy bu ñu demee tey ba ñu jël nit ñi ne confiné leen ci seen biir kër boroom kër bu nekk tey jii vingt comme que neen nañ vingt bu kenn génnati mais ñaan sama mbokk boroom kër ku nekk boo toogee parce que vingt heures moom def naa ne njaayeen yeeg jóobi ne reeraguñu hmm. bu ñu toogee balaa ngeen ni reer wax leen seen doom yi ak seen soxna yi hmm. ci feebar bi def leen benn information hmm. waaw ngeen sensibiliser leen ci loolu ba ñu xam ka parce que loolu c'est important xale yu ndaw yi bu leen jàpp ne ay xale lañ rek donc xamuñu boo leen ko expliquer sama doom bi dem daf ma doon wax naan euh, je je sors pas parce que y virus waaw ah. <laughs> donc xam nga donc information nga sensibiliser xale ba mu intégrer loolu mm. nga sensibiliser sa bor say sa mun na doon le début du changement pour demain jërëjëf merci beaucoup Docteur Aboussi, psychiatre, coordonnateur cellule psychosociale bu ministère de la Santé et de l'Action sociale. Thérèse Faye Diouf, directrice générale euh, agence la petite enfance et de la case de tout petits ñu leen di gërëm bu baax ak Yves Olivier Kassoga bi nga xamante ne nii euh, euh, spécialiste protection de l'enfance la bokk ci UNICEF di chef zone bu Kolda nekkoon na ak ñun ci téléphone bi Yves ñu ngi lay gërëm bu baax waxtu wee ñu xat ñoo yaxat tàmbali aussi ñu yaakaar ni lépp njariñ la woon ñuy fàttali rek chiffres yi ci àdduna bi 485 000 personnes am nañu jomm jàngoro ji Sénégal moom ci 105 ñu koy sante yàlla kenn ñàkk gu ci bakkan mesure yi lenn rek la raxasu mesure barrière raxasu seet kuy sëqat nga téye ko def ko ci sa conc boo amul masque kuy tissu li nga moytu gis naa benn euh, grande surface waa ji daal tissu li ci biir gars yi di seet ci ban ale la nekk xam nga ku nekk bëgg koo moytu loolu nañu ko mën nañ koo wattandiku ah. waaw jamono tiisee lisaan waa ji neen nañ ko embargo ba yeneen i jëmmi jamono <laughs> def mooy li gën sant yàlla ñu ngi leen di gërëm suba beneen point corona incha allah ci télévision Futur Média plus tard soir d'info le journal en wolof et puis 20 heures la grande édition avec euh, Chérif Diop jërëjëf ba ëllëg ak jàmm.